mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom mooy docteur Amadou Sow docteur Amadou Sow nekk médecin légiste waaye tamit nekk président bu commission administrative bu ordre national des médecins bu du Sénégal docteur Sow ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo rajo Rewmi FM. mais laata loolu dañ lay sant gërëm la ci nangu bi nga xamante ne vraiment nangu nga ko wuyu ci suñu invitation bile. merci Fatou Fatou Baba Fall maa lay eh, gërëm ci invitation bi nga xam ne def nga ñu ko. Mm-hmm. opportunité pour ñu mën a waxtaan ak Sénégal ci question yi nga xam ne fas yéene nga ñu ko laaj. Mm-hmm. di la nuyu di nuyu say auditeurs di nuyu sénégalais yëpp. Mm-hmm. Eh, sant ko gërëm ko docteur dañuy tàmbaleek waxtaan bi ci li nga xamante ne moom moo di sa spécialité eh, farataalu ñu di déglu lu ñuy duppe un médecin légiste boo ko doon faram-fàccee ngir auditeurs yi ñuy déglu gëna xam leeg spécialité bi lan nga ñu ci mën a wax docteur saw merci Fatou euh, comme ni nga ko waxee nekkut loo xam ne peut-être euh, dinañ koy faral di dégg au Sénégal comme niñ koy waxee c'est une spécialité boo xam ne c'est un peu méconnue. Mm-hmm. même dans le milieu de la santé c'est pas très bien connu. Euh, à plus forte raison maintenant ci population yi mais de plus en plus nag voilà euh, mu ngi commencé di développer wu ñenn ñi ñu ngi spécialisé wu ci fànn boobu noonu parce que peut-être doxalinu àddina ak développement bi mooy finalement laaj ñu ay médecin légiste donc pour revenir maintenant ci spécialité boobu nga xam ne mooy médecine légale mm-hmm. nga xam ne ki koy exercer moom la ñuy wax médecin légiste euh, benn banqaas la ci médecine Euh, comme ni nga ko xamee médecine dafa am médecine général mooy le médecin généraliste mooy ki def juróom-ñetti at faculté de médecine ginnaaw bu mu amee bagam euh, ba def juróom-ñetti at am doctorat am kooku mooy médecin généraliste maintenant boo bëggee spécialisé wu solon branche bi ngay def mën nga ci yokkaat ñeent wala juróomi at. Mm-hmm. donc médecine légale ci spécialité yi nga xam ne la ginnaaw boo amee sa doctorat da nga ciy tegaat ñeenti at pour mun ko jàng mën a nekk lu ñuy wax médecin légiste. Mhm. maintenant médecine légale pour nit ñi mën a comprendre euh, banqaas la boo xam ne moom day lëkkale wàllu kër docteur santé ak wàllu yoon. mooy fi mbaxana doone benn wala justice wàllu droit parce que comme ni ñu koy waxee le médecin légiste. Mm-hmm. c'est le juge des médecins et le médecin des juges donc moom dafa nekk ci diggante euh, wàllu euh, yoon ak diggante wàllu euh, kër docteur santé mm-hmm. pour expliquer toujours am na nag ay pàcc pàcc ci biir médecine légale mm-hmm. mais ñu xam ne médecine légale mooy spécialité bi nga xam ne ñoom ñoo war di jàngale lépp luy droit lépp luy déontologie ci wàllu euh, kër docteur éthique et déontologie loolu spécialité la boo xam ne médecine légale moom moo euh, saso di ko jàngal waa kër docteur yi pour ñu mën di respecter peut-être li nga xam ne yoon moom la tëral euh, yoon yi nga xam ne si lañ war a jaar hmm. am na beneen pàcc aussi si médecine légal mooy li nga xam ne dañ koy exercer maintenant ci nit ki nga xam ne soit dafa dund day dund wala ki nga xam ne dafa faat mhm. loolu la ñuy wax la médecine légale clinique mhm. <coughs> la médecine légal clinique nag comme ni ma ko waxee ñaari branche la mhm. bi nga xam ne ci nit kiy dund lañ koy exercer ak bi nga xam ne ci kiy faatu lañ koy exercer bi nga xam ne ci kiy dund mooy par exemple da ngay gis ñi nga xam ne dañoo def accident buñ demee ba wér buñ leen waree assurance bi bu leen waree indemniser médecin moom mooy wax mooy xayma kii kat accident bi loraange bi mu ko jural ñaata la tool mooy li ñuy wax taux d'incapacité Euh, permanente parcelle bi. Mm-hmm. donc loolu la ñuy wax expertise médicale. Mm-hmm. Euh, pour les accidentés loolu médecin légiste moom moo koy def. Mm-hmm. mais am na aussi comme li nga xam ne moom la ñëpp gën a xam mooy ay certificats médicaux. boo xeex nit mu gaañ la nga dem uti certificat médical loolu normalement peut-être médecin n'importe quel médecin war na ko mën a def mais ci. Euh, spécialité wu médecine légale la bokk ñoom ñoo gën a euh, xarañ pour mën a def loolu noon parce que seen spécialité loolu la jagloo. Mhm. maintenant toujours ci médecine légale clinique bi am na lu ñuy wax expertise médicale mooy ci wàllu yoon toujours bu nit demee euh, kër docteur du moins police wala mu ñu tëj ko prison des fois mën nañ demander pour xool ndax yaramam méngoo na Euh, béréb ba mu nekk wala ndax war nañ ko mën a euh, bàyyi ndax dafa feebar wala daa donc juge bi buy laaj avis day laaj peut-être le plus souvent un médecin boo xam ne voilà les médecins légisent prioritairement mais beneen médecin aussi war na mën a def expertise médicale pour soit ku nekk en garde à vue wala ku nekk en prison voilà léegi aussi am na comme ni ma ko doon waxee nag beneen pàcc bi mooy li nga xam ne si médecine euh, ki faatu lañ koy exercer mhm. mooy bi ci gën a siiw mooy autopsie waaw ku faatu ñu dem xool ba xam kii lan moo ko rey loolu aussi spécialité ci branche médecine légale la mhm. ànd ak am na beneen boo xam ne peut-être Sénégal dañuy dégg levée de corps levée de corps mais pas comme levée de corps bi nga xam ne moom la faral di gis mm. mais dans la médecine légale am na lu ñuy wax levée de corps mooy le médecin légiste day ñëw examiner le cadavre dans son environnement avant ñu koy manipuler ça aussi c'est euh, loo xam ne liggéeyu médecin médecin légiste bi la parce que ça permet d'avoir beaucoup d'informations sur euh, les conditions de survenue du décès et même quelquefois euh, mun na joxe ay indices sur les causes de wala la nature du du décès. Mm-hmm. donc pour ne pas am na yeneen am na lu ñu wax médecine légale toxicologique mooy wàllu poison yeeg nangam na am na médecine légale. en milieu pénitentiaire mm-hmm. donc la médecine en milieu pénitentiaire bëri na mais mun nañ ko tënk daal ci comme yi ma wax noonu voilà peut-être yeneen yi bu ko laajee mun nañ ñëwaat ci biir quoi mm-hmm. euh, mu mel ni euh, seen domaine euh, bi ngeen di bi ngeen di farataal di évoluer bëri na wax nga ko wax nga lépp lu jëm ci wàllum expertise wax nga lépp lu jëm ci wàllum autopsie ak levée de corps ni nga ci sax ay leeral xam naa connotation bi ko nit yi jàppe woon tey indi nga ci ay leeral Sénégal par rapport ak levée de corps bi mais bu weesoo loolu tamit mu mel ni am ngeen fu ngeen di gën a intervenir mu bokk ci lépp lu ñuy duppee wàllu ay examen clinique yoo xamante ne dafa soxal ay xale wala ay mag yoo xamante ne dañu daal di subir lu ñuy duppee ay sévices corporels maanaam dañ leen métital foofu tamit mu mel ni seen domaine de prédilection la aussi docteur Amadou Sow la ko waxee ci biir Euh, li ñuy wax les certificats médicaux pour kou et blessures loolu médecin légitime bi moom moo koy moo koy def moo koy délivrer mais à chaque fois qu'il y ait sévice euh, corporel violence physique par rapport exercée sur une personne pour nga mun ko apprécier euh, finalité bi après mooy peut-être tu vas produire un certificat boo xam ne moom mooy matérialiser peut-être les légions yi nga xam ne moom nga observé mais comme ni nga ko waxee dans sa formation le médecin légiste on l'a on, on l'a formé pour mu mën a teel a déterminer xam wala évaluer même euh, nit ki nga xam ne euh, voilà subir na violence boobu noonu mu mun ko déterminer diagnostiquer ko parce que le plus souvent ça peut passer inaperçu su fekkee ne euh, tàggatuñ la ci xale mun nañ ko ñëw indi ko consultation voilà soo ci bàyyiwul xel mun nga am yenn signes yoo xam ne bu fekkoon ne tàggat nañ la di nga teel a xam ne kii kat attention est-ce que nekkul di di subir benn service benn violence wala mag bu mën a tut boppam dara wala n'importe quelle autre personne euh, voilà donc effectivement comme ni nga ko waxee c'est une c'est un domaine de prédilection du médecin légiste Euh, peut-être ni bindoo spécialité bi ni nga xamee ne peut-être c'est pas très bien exercé au Sénégal parce que bëriwuñ wala ñi ko def aussi nekkuñ di ko exercer carrément lool moo tax certainement euh, yooyu du doo gis mu répandre mais effectivement c'est le cœur de métier du médecin légiste. Euh, justement docteur wax nga ko seen domaine de prédilection yaatu na fu ngeen di intervenir bëri na mais donte askan wi xamuñu bu baax a baax lii di légiste euh, tey lan nga jàpp ne moom mooy expliquer le fait que une bonne partie de cette population sénégalaise euh, xamuñu euh, seen spécialité est-ce que da ngeen nekkul lim bi suffisant wala aussi seen travail seen liggéey autant pour moi da ngeen ko fësalul lan moo expliquer le fait que gars yu maîtriser wuñ ne Sénégal am na ñu ko xam mais ñu ko umpale daanaka moo ëpp bu ma la déggee bien sûr wax loolu moom li koy expliquer bëri na du benn yi nga wax noonu yëpp mun nañu wax ne bokk na ci d'abord mooy ne la nombre de médecins léegi su bëriwul. Mm. beneen bi mooy ne aussi euh, euh, communiquer wuñ ci suffisamment mais beneen bi aussi mooy ne euh, ñu koy exercer au Sénégal par exemple je dois dire que ñi nga xam ne ay médecins léegi si lañ li ci ëpp. Euh, peut-être am nañ beneen spécialité boo xam ne moom lañ njëkk a def avant ñuy def médecine légale médecine légale la koy def pour benn euh, objectif précis am na ñu bëri ñoo xam ne pour pouvoir travailler avec les assurances di mën a def expertise ñu ma lay wax noonu pour les accidentés yi nga xam ne après dañ leen di indemniser ñi si ëpp loolu moo taxoon ñu def médecine légale donc ils sont en train de faire cela donc loolu tant que yow jànkonte woo ak loolu mun nga bañ a xam exercice boobu maintenant nag li waroon a am mooy il faut que yow ba aller dans la mais loo gis rek peut jamono mooy dox ba laaj ko parce que bu njakk ba da nga doon gis ne Sénégal euh, médecin euh, dëkk yi ay médecin lañ doon am mais de plus en plus da ngay gis ne à côté du médecin généraliste indi nañ fa cardiologue indi nañ fa gynécologue indi nañ keneen donc dund bi dem na bay évoluer bañ commencé di am ay spécialité ak ay sous spécialité médecine légale aussi bu njëkk ba c'est le médecin qui faisait Euh, tout nga nekk euh, victime de violence sexuelle wala violence physique wala leneen c'est le médecin qui faisait tout mais de plus en plus quand on des médecins yi nga xam ne ils sont spécialisés dans ce domaine la La logique voudrait que maintenant qu'on puisse avoir comme on l'a avec des autres spécialités boo demee hôpital am na service de cardiologie am na service de gynécologie war normalement war na mën a am maintenant ce qu'on appelle des unités médico-judiciaires C'est-à-dire, ça permet maintenant de centraliser un peu cette gestion de, de, de, de, de cette, de cette spécialité mm -hmm. médico-légale. Il y a le médecin légiste qui collabore avec tous les autres médecins. Parce docteur, que comme je... docteur, mhm. dina la dag fofu touti yaangi yaangi ci ci français bi je reconnais que certainement yenn yenn yenn yenn yenn yenn yenn wax yi il faut nga wax ko en français mais dama lay fàttali rek ne euh, émission bi c'est une émission bi émission en wolof la bon une fois en passant mun nañ ci dugal ay moo mots wolof ay moo français xam naa loolu dina compliqué mais bon nga xaw a wàññi tuuti français bi rek reveniraat ñu un peu ci li nga xamante ne moom moo di eh, wolof bi dont parce que émission bi c'est en wolof allez-y docteur Amadou Sow. <laughs> waaw loolu dina ci baax parce que je pense que pas mal ci wolof bi donc mun nañ ci xóot bu baax donc li ma doon wax rek mooy ne fi mu toll nii eh, li ñu war a am mooy li ñuy wax ay unités médico-judiciaires comme nooy demee hôpital ñu la fii normalement ci hôpital yu mag yëpp hôpital régional yëpp wala en tout cas les grands hôpitaux dafa war a am lu ñuy wax unité médico unité médico judiciaire nga xam ne c'est le médecin légiste avec les autres euh, praticiens qui interviennent dans euh, la prise en charge ci ñi nga xam ne peut-être ñoo nekk victime France le psychologue le psychiatre le gynécologue ou toutes les autres personnes yi nga xam ne dañ soxla seeni i compétence mais su la coordination maintenant de ce médecin légiste ñu mën a am ce service la doon na faciliter euh, l'utilisation ou même la connaissance de ce service par les populations mais li ñuy retenir rek mooy ne même beaucoup population yi xamul euh, chaque jour ñu ngi utiliser euh, la médecine légale parce que derrière chaque acte médico médical il y a un volet médico-légal mm -hmm. certificat médical bi ñu lay délivrer mu nekk euh, pour coup et blessure wala mu nekk pour repos médicale euh, wala rapport bi ñu lay jox tout ça c'est euh, ce sont des spécial des des des éléments yoo xam ne dañ koy retrouver dans la médecine légale mhm. donc pour ma résumer rek li nga wax lépp mu ngi ci biir mhm. ñàkk xam population yi Euh, spécialité bi dafa lié au fait que ñi koy def bëriwul ñenn ci ñun ñi nga xam ne def nañ spécialité bi ñoom ci benn domaine rek lañ yem boo xam ne peut loolu population yi mun nañ ko bañ a teel a xam mais beneen bi aussi mooy on a pas communiqué là-dessus mhm. mujjanteel bi aussi mooy service yi niñ ko organiser da ngay ñëw hôpital gis service yëpp mais doo gis bu fuñ ne fii mooy service médecine légale mhm. Mhm. Euh, des ba léegi ci wàllu woowu ah, fii dañuy baaxoo moo xam euh, police wala gendarmerie chaque fois dañuy exiger euh, ci victime yi ah, wala plaignant yi ñu daal di indi li nga xamante ne moom moo di certificat médical pour déposer moo xam plainte ba moom moo waral sax ci ay jamono docteur Amadou Sow ngeen doon interroger wu si lan mooy pertinance su exiger certificat médical ngir déposer plainte jamono yooyu sax bu ma fàttalikoo yéen a doon sàkku ñu amal ay formation jagleel ku ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci lépp lu jëm ci wàllum ay action ju ay acteurs judiciaires euh, tey par rapport à la création d'unités médico-judiciaires boobu euh, ci chaque euh, hôpital régional fu ngeen ci toll docteur Amadou Sow waaw loolu peut-être xam naa ne samay naatongo wala ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer la chaire de médecine légale ci mel ni professeur Souma certainement moom mooy gën a am habilitation pour xam exactement wala waa ministère bi nga xam ne sax ñoo am responsabilité mhm. organiser les services de soins ñoom certainement ñooy gën a mën a tontu que fuñ ci toll est-ce que muy avancer avancé oui mhm. mais li ma mën a wax rek mooy effectivement ñun en tout cas euh, suñ côté muy voilà man personnellement d'autres collègues on est en train de li nga xam ne mun nañ ko pour vulgariser cette spécialité d' abord au sein de notre corporation ci biir médecin yi ñu xamal leen lan moy njëriñu médecine légale ak lan la leen mën a apporter parce que comme ni ma ko waxee acte médical boo def derrière y a un volet médico légal donc euh, ni ma koy waxee yenn médecin rek tout médecin devrait être spécialisé ou en tout cas avoir des connaissances approfondies en médecine légale parce que da koy soxla da koy dimbale dans sa pratique Euh, donc loolu ñu ngi koy def aussi xamal ko population yi ne bi parce que comme ni nga ko waxee euh, booy dem di porter plainte on te demande le plus souvent nga indi un certificat médical da ciy baax peut-être certificat médical boobu ngay indi mu nekk un certificat médical boo xam ne de bonne qualité la dina la mën peut-être euh, juge bi dina ko mun a utiliser wala mu jox ko benn crédit bi hmm. donc maintenant li nga wax nag est-ce que systématiquement pour porter plainte da nga war am certificat médical moi en tout cas personnellement li ma ci xalaat mooy ne loolu waruñ ko def systématiquement et je ne pense pas que loolu euh, yoon moo ko wax parce que aussi euh, nit mun na la mun nga joteeg nit xeex ak moom euh, voilà mu dóor la alors que dóor bi amul benn jeexatal sa yaram amul benn blessure foofu boo demee wuti certificat médical dinañ la defal certificat médical mais peut-être certificat bi euh, duñ duñ ci def benn incapacité parce que peut-être le médecin n'a pas objectivé benn lésion ni. Euh, somatique wala ñi psychologique su est-ce que bu ñemee ci certificat rek dañ naan kon yow jarul nga porter plainte mm. alors que le policier la gendarmerie ou le juge après moom il la la possibilité en tout cas buñ porter plainte ne kii daf ma doon daf ma dóor dama xeex ak moom mu def l'enquête qu'il faut peut-être xool ay témoins leneen leneen pour mën a xam ne kat waa ñii xeex na ci tooñ donc loolu li ma rek mooy ne c'est bien dans certaines situations il faut que certificat médical bi day nekk loo xam ne lu am njëriñ la parce que dina permettre juge bi mu mën a apprécier peut-être la gravité lésion yi wala en tout cas la force bi nga xam ne moom la euh, l'autre euh, celui euh, la l'accusé moom la utiliser pour mën a pour man moom la utiliser pour agresser la personne victime mais on ne doit pas partir de ça pour généraliser pour dire que coûte que coûte boo ko amul sa plainte mënuñ ko recevoir. Mhm. loolu man jusqu'à preuve du contraire je pense que c'est quelque chose boo xam ne peut-être méconnaissance la wala euh, abus la boo xam ne war ko dindee. Mhm. <laughs> Euh, médecin médecin médecin légal yi ah, ñu nekk ñi nga xamante ne eh, dañuy liggéey le plus souvent ci cadre universitaire am euh, statut lii di statut libéral tey ñu bëgg xam rek ndax par rapport ak seen spécialité bi eh, compatible na ngir mu ngeen ubbi ay cabinet comme ni ko ñeneen ñi di defee pour certainement liggéey ci li ñuy duppee en toute indépendance am nga seen seen seen statut est-ce que permettre na leen ngeen ngeen ubbi li di cabinet médical. waaw n'importe euh, quel médecin quel que soit par ay sa spécialité am na droit le statut may na ko bu tijji cabinet et on dit sax li ñuy habituellement mooy la médecine est une profession par essence libérale mhm. comme avocat bi médecin bi normalement ñëpp noonu la ñu waroon a def bu ñu en tout cas li ëpp si ñun dañoo waroon ay médecins libéraux c'est-à-dire ñu installé wu dans le privé maintenant état ñim ci mën a jël mu jël leen pour les services publics parce que la médecine c'est une profession par essence libérale mm -hmm. que tu sois maintenant gynécologue cardiologue ou médecin légiste ça ne change pas les règles sont humiliables règles yi nga xam ne moom la médecin bi di doxee du changer selon mu nekk ci privé bi wala mu nekk ci public et que aussi indépendance bi ñuy wax ak yooyu même celui qui est recruté dans une entreprise wala celui qui est recruté il garde toujours son indépendance c'est pas parce que yow yaa ngi ci privé bi sa patron bopp nga tu plus indépendant que l'autre médecin mhm. parce que règle yi ñuy ni ñuy fonctionner parce que man bu mu fekkee ma jël ma nekk médecin peut-être fonctionnaire nekk chef de service am na ci loo xam ne peut-être man fa laa war a mën a yem ak samay supérieur hiérarchique ci en terme de information qui concerne peut les usagers du service mm-hmm. donc cela ne veut pas dire que man bu ma demee en privé rek fa laa gën a libre non ki nekk en public en tout cas laal loi les règles de la médecine permettre na ko mu exercer librement mm-hmm. maintenant voilà pour revenir sur cette question c'est bien possible par exemple course yu mel ni man sama ambition c'est c'est exercer la médecine légale ci domaine boo xam ne c'est un cadre voilà libéral euh, voilà loolu c'est bien possible. Mm-hmm. Euh, euh, sànq docteur Amadou Sow yaa ngi ko doon wax ah, seen lim néew na néew na parce que ci ay xibaar xam naa ne guddi yu ñu vous ne faites pas plus de cinquante pour une population qui fait joxe lu tolloo ci seize millions mu mel ni kon bu ñu jëlee lépp lu jëm ci ratio bi OMS di jagleel euh, on est très en deçà des normes ndax loolu aussi mënul indi ay gàllankoor par rapport ak seen liggéey seen productivité par rapport ak seen lim bi naka nga koy jàngatee. waaw loolu mooy comme li ma lay wax rek parce que su fekkoon ne dans chaque hôpital régional am nañ au moins un médecin légiste wala une unité médico-judiciaire parce que liggéey bi aussi des fois travail d'équipe lay nekk ndekoon doon na faciliter lu bëri Euh, bon maintenant pour revenir sur si li nga wax effectivement mun na indi ay gàllankoor gàllankoor bi muy indi mooy ne euh, peut-être du feeñ bu baax mais doon na gën a yombal population yi ñu accéder à ce service-là sans aucune euh, limitation mais fi mu toll nii yow boo bëggoon un certificat euh, à visée judiciaire boo xam ne c'est rédigé par un médecin légiste ça peut euh, poser poser problème mais loolu aussi il faut peut-être ñu nuancer hein, parce que comme on dit le diplôme de doctorat d'État en c'est un diplôme d'omnipraticien. Parce que normalement, tout médecin devrait pouvoir euh, faire ce que le médecin légiste en train de faire. Mm-hmm. Donc, peut-être, vous faites une rédaction du certificat médical, là, celui qui veut le faire, il a, a juste besoin de se donner les moyens de le faire correctement donc loolu aussi mooy tax un peu ñu nuancer certes y a pas beaucoup de médecins légistes mais les autres médecins comme ci yitteel normalement war nga war a rendre sa service la aux populations sauf maintenant yenn yi nga xam ne c'est un peu euh, avancé lu mel ni autopsie levée de corps wala la toxicologie médico-légale ak yeneen yooyu moom day laaj après peut-être nga spécialisé wu ci carrément mm-hmm. donc voilà loolu nag comme c'est plus euh, par rapport à l'organisation du système de santé man loolu maa jàpp que lim bi sax parce que normalement cinquantaine bi nga avancé bu fekkoon ne organisé woon nañ ba dans chaque région il y a cette unité médico-judiciaire activité boobu ñu développé fa développé fa euh, nekkul ne ñëpp ñooy soxla pour ñëw foofu noon cas yi nga xam ne c'est des cas vraiment euh, soxla nañ ñu yegg à ce niveau là ñu am sa prise prise en charge là ñu orienté leen de kon du am benn problème Mhm. Euh, mu mel ni ngir euh, gën a dooleel seen liggéey wala gi ngir euh, gën ko fësal am ngeen ab société bu ngeen taxawal muy société sénégalaise de médecine légale tey ñu taxaw foofu rek ngir auditeurs yi xam ne certainement nit yi même bu ñu leen xamulee yéen a ngi liggéey liggéey bu mucc ayib en partenariat avec les autres médecins bien sûr ndax que ndaxte da ngeen di mel ni da ngeen di liggéey en amont et en aval ñu dem sant yéen yéen tam mënu leen dem sans ñoom ba moom moo waral ngeen am euh, société sénégalaise de médecine légale tey jii justement par rapport ak euh, société boobu ndax yéen a ngi def euh, ay action yoo xamante ne vraiment dafay fësal seen liggéey ak seen pas-pas. waaw ñu ngi koy def selon peut-être yi nga xam ne moom la ñu am li may rappeler la société sénégalaise de médecine légale nga la bu lëkkale boole médecin légiste yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal dañ ko créer au mois de février 2016. Mhm. donc en 2018 ci lañ njëkk a créé def suñ premier congrès boo xam ne voilà euh, suñuy naataango yu jógee partout à travers l' Afrique et le monde ñoo fi ñëw ñu def un congrès et mois de mais bi aussi on est en train aussi de euh, xool nu ñuy organiser waatee beneen affaire bu mel ni ko ñu defoon en 2018 donc c'est dire que société bi en tout cas mu ngi def peut-être activité bi amaguñ maturité boo xam ne toog nañ fii ñenn ñi xam ne chaque année am nga ay journée scientifique wala am nga ay congrès yu def mais foofu dinañ fa yeggi mais pour répondre sa question effectivement société bi mu ngi def lu mu mën pour mën a en tout cas Euh, euh, daf ci am activité scientifique déjà mais aussi une activité boo xam ne dina vulgariser le travail bi nga xam ne moom na ñuy def. Mhm. xool aussi li ñu war a mën a apporter pour que système bi de santé bi gën a ñoŋ koy def aussi en en participant par nos réflexions à chaque fois ku ci mel ni professeur Souma voilà au niveau national international il est convié il donne il agit en tant que médecin légiste universitaire di joxe xalaatam je pense que loolu ça a beaucoup attribué lu ci mel le les de décès euh, par exemple euh, imprimé yi ñu utilisé je pense que euh, ministère def na ci ay jéego pour xoolaat réviser ko sa je pense que le professeur Souma a beaucoup contribué dans ce travail là c'est pour dire que société bi en tout cas ñu ngi liggéey peut-être nañ ko bëggee woon moyens yi ko mais dinañ ci yegg incha allah. Euh, février euh, février 2016 euh, tey ñu ngi nekk ci 2022 tey bu ñu doon defal benn petite évaluation wala benn xayma bu ndaw bi ngeen ko taxawalee ba léegi bilan ak perspective lan nga ñu ci mën a wax par rapport ak bien sûr ak société sénégalaise boobule. waaw bilan bi mu continuer ci en terme de de tournée scientifique. Euh, mooy bi ñu defoon deux mille dix huit ak bi nga xam ne ñu ngi koy waaj defaat euh, ren jii nii. maintenant certainement comme le secrétaire général je dois signaler euh, le président peut-être certes il est entre-temps dem na à la retraite le professeur Mamadou Lamine Sow mais il est toujours dans la médecine légale mm -hmm. le secrétaire général professeur Souma certainement il est mieux habilité pour parler un peu de la vie de la société de, de sénégalaise de médecine légale certes man en son temps j'étais dans la commission communication bu léegi donc c'est pour dire que perspective yi mooy en tout cas que cette société comme ni nga xam ne moom la ñu koy gisee fépp ci Sénégal ak ci bitim réew te mu am une activité intense activité scientifique di def ay journée di def congrès mais surtout aussi di porter un plaidoyer par exemple la société euh, la mise en place d'unités médico-judiciaires aussi dans les grands hôpitaux ñu mun ko am ak yeneen ak yeneen yoo normalement war nañ fa gis euh, la société sénégalaise de médecine légale ñu gis leen fa parce que par exemple récemment man j'ai participé à une rencontre boo xam ne je suis pas très sûr que j'ai vu on a invité des sociétés sénégalaises ay yeneen spécialité mais gisuma médecine légale alors que on parlait de nomenclature euh, des actes professionnels pour man personne n'est mieux habilité peut-être que le médecin légiste pour un peu participer à cette réflexion donc c'est pour dire que la perspective c'est un peu ça mhm. travailler sur une activité scientifique, mais aussi porter le plaidoyer et représenter la corporation pour le bien-être population parce que am na des changements yoo xam ne on doit les apporter euh, par rapport à l'organisation de l'offre de soins. Mhm. Mhm. Euh, mu mel ni lool lépp nga lim docteur euh, dafay constituer benn frein pour ñu gën leen xam parce que li nga fi lim yëpp amaana ma buñ ko concrétiser am na benn apport bu mu leen waroon gën a mën a indi guddi ñu toll. tout à fait tout à fait euh, mais je pense que ndànk ndànk rek xale moom day juddu di raam après mu dox après mu daw. Mhm. deux mille euh, seize deux mille seize lañ créé société bi entre wala euh, voilà am na ay activités je pense que on capitalise euh, on va partir de tout cela pour mën a aller de l'avant ndànk ndànk lentement mais y arriver incha allah. d' accord euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen ngi déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di daral ki nga xamante ne moom moo di docteur euh, Amadou Sow docteur Amadou Sow nekk médecin légiste waaye tamit nekk président bu commission administrative de l' ordre national des médecins du Sénégal docteur euh, dañuy génn ci wàllu woowu rek fas yéene waxtaanee ci li nga xamante ne moom moom moo di def euh, benn euh, taxaw seetlu euh, daal di koy jagleel système mu santé bu Sénégal yaa ngi nekk médecin légiste nekk ci corporation bi di ordre des médecins du Sénégal mais tamit yaa ngi foofu ca Kaffrine docteur Sénégal dafa mel ni bu ñu waxee wér-gu-yaram bi dafa feebar mënuñu wax te waxuñu lépp lu jëm ci wàllum ak accueil moo xam Dakar ba ci région yi tey lan nga ñu mën wax ci ci phénomène accueil ak orientation bi nga xamante ne mun nañ wax ne moom mooy parmi moom bokk na ci mal yu gën a profond euh, ci ci ci système bu santé bu Sénégal. waaw Fatou comme ni nga ko waxee effectivement euh, maa ngi ci kuréel yi nga xam ne peut-être moo lëkkale du bi wala di yeneen association. Mhm. nekk aussi à l'intérieur pays mais comme tous les Sénégalais nous fréquentons ñu ngi dugg ci service de santé yi di gis que ne naam am na ay effort yoo xam ne euh, naataango yi ñu ngi koy def ak waa ministère mais euh, des na war nañ gën a mën a en tout cas euh, liggéey ci organisation même du service de santé parce que comme ni nga ko waxee lu ne fàng kenn du ko kenn du ko jeex mm-hmm. en tout cas c'est le même problème foo dem loolu lañ lay wax donc je pense que il va falloir que ñu xool ñun suñu biir ak waa ministère nañ lañ war a mën a def ba loolu dootul nekk un problème ci système de santé bi. maintenant mm-hmm. accueil bi nag comme ni ñu koy waxee euh, comme ni euh, ñuy soin moom wala structure de santé équipe benn chaîne la. ci ki ngay fekk ci buntu hôpital bi habituellement muy visite bi ba ngay yeggee ci médecin bi. Mm. ñooñu ñëpp dañ leen war a préparer pour ñu mën a nekk des personnes yoo xam ne dañuy xam ne fi ñu nekk ña fiy ñëw non seulement dañoo dañoo am ñaari problème peut-être la ñuy am benn bi mooy seen problème mu feebar mais beneen bi aussi mooy problème mu peut-être organisation bu fekkee baaxul da leen di yokk jafe-jafe. Mm. donc il faut que ñu préparer le personnel. que ñu bañ def focus kese sur le médecin wala l'infirmier wala le personne le personnel dédié à l'accueil parce que de plus dans chaque hôpital da ngay gis ne y a un personnel dédié à l'accueil mais je me dis euh, du ñoom kese la ñu war a yem mm-hmm. même le vigile même ñi nga xam ne les fi de salle ñëpp dañu leen war a tàggat ci loolu ba nga xamante ne population yi bu ñu ñëwee dinañ xam ne kat fii ñi fi nekk ñu laa biir lañ ñu yaatu lañ mais lool aussi du doy parce que am na ci lu bëri loo xam ne du ci personnel bi mais ci euh, organisation service bi la wala manque de moyen la. Mm-hmm. parce wax ne la euh, bi par exemple dañ ko war a construire pour. Euh, dix mille habitants yow nga def un hôpital boo xam ne pour un million de personnes la. Mm-hmm. fréquentation boobu noonu fu cinq personnes waroon na wala vingt personnes waroon na ñëw par jour nga recevoir cent personnes foofu loo mën a mën a accueillir à un certain moment nit ñi dinañ tegalantoo dina xat mhm. le médecin bi nga xam ne aussi dafa war a dafa war a gis en moyenne nee nañ quinze malades par jour malade bu ne peut-être en moyenne quinze minutes par ko euh, consacré yow nga romb quinze malades dem ba quarante malades foofu aussi à un certain moment loolu dina am benn jeexital bu mu am ci qualité prise en charge bi wala ci qualité rapport yi nga xam ne moom koy am mhm. donc ñu bañ a gis ne problème mu accueil problème mu nit ki kese la mais nit ki joxe service de soins bi environnement bi mu nekk ak conditions yi koy teg des fois mooy tax ba euh, nit dina ñëw ne hôpital dama dem kenn faalewuma wala dama dem dama xaar une heure de temps bu fekkee ne pendant ces une heure de temps la le médecin wala l'infirmier mu ngi ci beneen malade boo xam ne moo gën a urgent wala en tout cas même degré d'urgence la am ko yow c'est normal chaque jour nga dégg ñu ne dañoo dem hôpital ñu ne fii dafa feex mu wëraat di wër di dem di dem hôpital bu nekk foofu day nekk problème mu capacité d'accueil mais day nekk problème organisation mhm. parce que bu fekkee ne da nga hôpital yëpp pour Euh, sa problème nga delluwaat sa kër wala nga mujj faatu ci ambulance pour man s'il y a une bonne organisation mieux vaut rester sur place ne pas faire le des hôpitaux pour mourir mhm. donc loolu aussi problème organisation sami mu ngi ciy def benn liggéey peut-être liggéey boobu mën nañ ko gën a améliorer mais euh, quoi qu'il en soit il faut que ñu xool daal le problème bi nga xam ne moom ba système santé bi jànkuwante bi mën ko régler mhm. bañ a ci ay euh, affaires yoo xam ne effet d'annonce a humains qu'il faut am nañu aussi xaalis bi nga xam ne war na mën a permettre ñu euh, régler problème boobu noonu seulement c'est une question de priorisation xam bi suñ priorité ñu taxaw ji ñu régler ko mhm. euh, mu mel ni lépp lu jëm ci wàllum accueil ak euh, information orientation ak sensibilisation euh, c'est tout une chaîne ndax bu ma la déggee nu muy concerner personnel bi moom la war am na yeneen nit yoo xamante ne dañu war venir en appoint pour lépp mën a jaar yoon justement par rapport à ça wax ci beneen point ah wax ci li nga xamante ne mooy eh, médecin yu spécialisé yi war a dem à l'intérieur du pays mu mel ni docteur euh, foofu tamit euh, Sénégal euh, respecté wul li mu ratio bi parce que ñu bëri bu ñu leen affecté ils préfèrent rester à Dakar alors que au niveau des régions dañ fay tabax ay édifices ay ay ay structures hospitalières yu mucc ayib mais mu mel ni infrastructure yu baax na lépp li mu war a àndal mu ngi ca mais mais ressources humaines bi moom mooy poser problème ba euh, dañ fay am ay ay bâtiment yu mucc ayib mais dañuy préférer ñëw à Dakar pour faire des consultations wala def ay analyses wala subir des interventions chirurgicales euh, tey euh, disponibilité yu soxal médecins spécialistes yi à l'intérieur du pays lan nga ñu ci mën a wax gap la wala problème ban problème nga ñu ci mën a wax waaw loolu euh, c'est un réel problème actuellement ci euh, Sénégal bu fekkee ne même bu fekkee ne am na effort yoo xam ne nit koy def mm. mais euh, li ñu war a xam mooy ne amul benn médecin parce que médecin c'est un travailleur comme tous les autres travailleurs mm-hmm. bu fekkee ne man maa la jël am ay conditions yu ma la jëlee mu war la affecté ngay ngay bañ su boobaa ma dàq la loolu amul ex warul am exception ci peut-être médecin bi ak keneen donc c'est pour dire que le problème est mal posé si on dit que suñu waxee ne kii dañ koy affecté mu bañ wala deneen alors que yow am nga les moyen pour mën a régler loolu donc je pense que en tout cas pour ñu mën a régler problème bi man yàgg naa di ko wax je rappelle que en 2014 bi ñuy ne ci collectif des médecins en spécialisation 2014 euh, 2015 ba je pense 2017 ñu ngi woon ci kuréel googu nga xam ne moom moo lëkkale médecins yi xam ne dañuy spécialisé nekkoon naa secrétaire général bi. Mhm. yàgg nañ di def ay proposition di wax ne état bi dafa war am benn politique bu ko mën a permettre mu am de médecins spécialistes affectables dans les régions. Mhm. loolu dama ji taxaw parce que problème bi mooy euh, le ministère certes mu ngi joxe bourse. mais condition yi mu koy joxe pour man xaalis bu muy jeté par la fenêtre la. Mhm. parce que mënoo euh, c'est vrai que bourse bi cent mille francs la jógee woon ñun bi ñuy def première année at boobu la njëkk a jógee cent mille francs ñëw cent cinquante mille ensuite léegi mu ngi trois cent mille. mais loolu pour man du dara par rapport ak condition yi nga xam ne médecin bi noonu lay defee formation bi par que ñu rappeler ne le médecin bi def spécialisation c'est un docteur d'état il a bac plus huit mhm. amul salaire amul dara donc bourse bi ñu koy jox nee nañ trois cent mille la trois cent mille Dakar fi mu toll nii boo ci jëlee fóot ak sa transport loolu rek dara des si suufa alors que tu as une famille même ces médecins là pour man euh, conditions yi ñu leen a teg dina tax seen formation mun na am lu ci sooxe parce que dañuy gis koo xam ne dafa war di xëy di jàngi euh, nekk hôpital mais guddi gi day dem di xarimat di garde pour mën a dund donc pour man euh, ministère dafa war a di jël benn politique boo xam ne peut-être au lieu que nekk ay bourse genre recrutement lay nekk mhm. soit ñu territorialiser ko sax ñu ne waaw on va recruter pour Kaffrine dans cinq ans on aura besoin d'un gynécologue euh, d'un cardiologue d'un orthopédiste on les recrute bu ñu paree seen médecin seen médecine générale on les on leur paye un salaire bu leen mën a permettre ñu vivre aussi d'une manière décente euh, nekk dans de bonnes condition pour def euh, leur formation bu ñu paree après ñu rejoindre seen poste mm-hmm. et que aussi foofu mu bañ a nekk da ngay dem pour ñu fàtte la parce mm-hmm. que aussi leen beneen problème bi y a des gens qui sont prêts pour mm-hmm. aller en région mais li ñuy redouté mooy bu ñu demee suñ xasee accepté ba dem fa dootuñ mën a génn foofu noonu alors que y aura des leurs yi nga xam ne ba ñuy def seen médecine générale ba ba ñuy spécialisé wu mosuñ génn Dakar mosuñ xam li nekk ci région yi yow nga ne région def fa vingt ans bëgg a génn mu tëla loolu aussi c'est un problème boo xam ne il faut qu'il de la transparence et de l'équité dans la mobilisation des ressources yi nga xam ne moom la ministère di yore. Mhm. loolu tànk defuñ ko parce que eh, yaa ngi koy wax nga ne dañoo tabax ay bâtiment ay équipement mhm. des bâtiments équipés dans les rues. tout à fait mais le, le plus souvent aussi boo dégloo les spécialistes instant bi il faut essayer de voir est-ce que. les bâtiments yi nga xam ne tabax nañ ko tous les équipements yi nga xam ne moo fa war a nekk nekk na fa est-ce que c'est fonctionnel est-ce que réanimation bi nga xam ne nañ ko infirmier yi nga xam ne dañ leen waroon a former ñu spécialisé en réanimation est-ce que am nañ ko. Mm-hmm. centre de dialyse bañ tijji est-ce que la mu am ci personnel am na ko donc affaire yi du bâtiment kese bâtiment certes ci la bokk mais am na leneen luy ànd ak bâtiment. Mm-hmm. mais aussi le médecin bi ñëw ci bâtiment bo noonu il a besoin socialement aussi moom it mu am benn euh, évolution c'est-à-dire aussi même professionnellement parce que bu fekkee ne da nga ñëw fii nii yow mënatoo pour dem participer à des congrès mënatoo dem participer à des journées scientifiques parce que y a une charge de travail tellement énorme mm. du lundi au dimanche yaa ngi liggéey mm-hmm. loolu aussi du il faut que au niveau local non seulement ñu man la permetre yow euh, say doom am fu ñu mën a jàngee ainsi suite mais yow professionnellement nga mën a avancer mm-hmm. tant que loolu defuñ ko le médecins à juste raison vont vouloir rester à Dakar parce que Dakar fa la ñuy avancer professionnellement Dakar fa la ñuy peut-être ñi bëgg a xar matt fa la ñuy xaree matt ainsi de suite même si bu fekkee ne lool état a les moyens de réguler cela buñ ko deful ñoom la neex euh, pour me résumer par rapport à ce point ce n'est pas une question de euh, jël euh, un bâton kese da ngay def lii wala ma def li encore une fois que l'État est dans une position de faiblesse munu ko aller da, dans un euh, vers un travail de en profondeur pour xool mhm. le problème ñu mën a indi des solutions bañ a utiliser des voies détournées comme ni comme ministère di defee actuellement di passer par des chaires pour ñu affecter la un médecin stagiaire pendant six mois pour mu gérer un service en tant que spécialiste pour man on doit éviter ces moyens là wala euh, di éviter di bañ a joxe autorisation pour médecin bi installé wu en privé parce que voilà nangul dem dans les régions pour man on doit aller dans la persuasion faire de telle sorte que le médecin parce que ku mel ni man nekk euh, jógee dans les régions si tu as le minimum tu devrais pas refuser d'aller euh, dans les régions et il a des jeunes médecins yu dëkk Dakar juddoo fa ils sont prêts à aller parce que la médecine c'est une euh, benn kii la boo xam ne nu mu profession sacerdoce là ils sont prêts à aller servir mais pourvu que il y a maintenant qu'il y ait les conditions mm -hmm. donc vraiment euh, j'invite le ministère qui a la responsabilité de trouver les ressources d'être dans une posture de persuasion que dans une posture d'impôt euh, de, de, de, de, forcer les personnes euh, voilà pour euh, ñu mën a mettre des postes su boobaa tara liggéey bi ni mu war du ko demee quoi. Mhm. docteur déglu naa la bu baax a baax mu mel ni bon c'est bien boo ñu wax ne affecté nañu nit yi def nañu ay édifices mais apparemment mesure d'accompagnement bi moom moo des lu bëree bëri ba ñenn ñi defuñu ko parce dañu bañ bañ a rejoindre euh, région yi ñu préférer rester à Dakar euh, mu mel ni dañuy farataal di mettre les charrues avant les bœufs su ma la comprendre bu baax. waaw oui, absolument en tout cas man sama perception mooy que des fois on ne sait pas ce qu'on doit faire pour nit ñi mun a euh, Kaffrine wala Kédougou wala Kolda mën a am peut médecin Euh, tout le travail préalable pour que kooku bu mu ñëwee mën a def liggéeyam convenablement mais non dañuy toog xaar ba peut-être waa Kédougou di kaas ne war nañu am gynécologue ñu xëy jël kenn wala xool benn professeur ne ko xoolal ma si sa gars yi kan lañ ma war a mën a yóbbu Kédougou kooku ñu jël ko yóbbu ko. pour man loolu c'est pas solution on doit travailler xool ne fii dafa war am euh, gynécologue gynécologue bu nekkee ci hôpital war na mën a am un bloc opératoire bu fonctionnel war na am benn. réanimation bu fonctionné war na am banque de sang bu fonctionné de suite loolu yëpp ñu def ko ba mu nekk ñu soog a mën a xalaat nag indi le gynécologue ànd ak aussi peut-être le gynécologue mën na ñëw pour def assurer les consultations uniques mais bu fekkee ne yeneen yi mu war def yëpp defu ko aussi ça motive pas ànd ne aussi conditions yi ma la wax il faut qu'il y ait une un système de rotation bu wóor ma ne man bu ma demee euh, je ferai cinq ans peut mais à l'issue de mes cinq ans si je veux bouger quelqu'un d'autre viendra prendre le relais parce que il faut ñu comprendre que ne charge de travail bi nekk dans les régions c'est pas comparable avec Dakar. Mm-hmm. donc boo ko Euh, de l'intérieur finalement il est décédé et que les gens sont euh, ñenn ñi nañ sax peut-être c'est lié à la charge de travail bi xam ne amoon na. surplus de travail bi. waaw moi j'ai été témoin de médecins yoo xam ne c'est des chirurgiens ou bien c'est des gynécologues dans les régions mais amuñ week-end dimanche amuñ férié amuñ dara ils travaillent sept jours sur sept douze mois sur douze kooku nag bu fekkee ministère amul. Euh, transparence ci mobilisation des ressources humaines wala amul équité day poser problème man su ma amee opportunité bañ a dem parce que su ma nekkee médecin spécialiste bi ñu formé wu dimbale wu pour ma formé wu man maa doon fanaan ay hôpital di yéeg ko wàcc di xarmat pour mën a nekk un médecin spécialiste ma pare nga bëgg ne parce que au nom de xaw ma de la fibre patriotique da nga may yóbbu pour man nekk dans la misère wala pour ma donc loolu il faut que le ministère mu jéem a xool comment résolution peut être ce problème Euh, docteur euh, Amadou Sow ñu wax ci beneen casquette bi euh, bokk nga ci ordre des médecins bu Sénégal tey ñuy farataal di dégg faux et usage de faux mu bëri lool ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy lu ñuy duppee eh, les blouses blanchons chaque fois dañuy dégg ne eh, am na koo xamante ne dafay mbubboo ne gynécologue la am na ko foo koo xamante ne dafay mbubboo ne dafay def rajo entre autres mu mel ni Euh, phénomène nu faux et usage de faux dafa bëri ci seen euh, corporation tey eh, ban taxaw seetlu nga ci nga ci nga ci indi eh, faay bi wala responsabilité bi boo ko doon imputé eh, fan nga koy jubale waaw c'est à plusieurs niveaux mhm. comme ni nga ko waxee euh, en tout cas yoon loi bi ni ñu ko tëggee leeral na lépp ba nga xamante lépp ngi jaar yoon kenn warul mën a nekk ci hôpital di faj te euh, condition yi nga xam ne waroon nga ko réunir réuniroo ko muy wàllu diplôme wàllu inscription ordonnance maintenant bu fekkee ne nit mun na nekk ci hôpital ne gynécologue la te nekk ko wala mu nekk ci coin tijji benn euh, structure de santé di def loo xam ne waru fa ko fa def lool c'est parce que quelque part am na fu mbir yi sooxee mhm. maintenant damay revenir un peu pour expliquer parce que exercice illégal de la médecine mhm. il faut ñu xam ne loi bu datée de mille neuf cent soixante six moom moo wax kan moo mën a euh, exercer médecine ci Sénégal daf ne il faut nga réunir ñetti condition benn il faut nga nekk sénégalais ñaareel bi mooy il faut nga am doctorat d'état ñetteel bi mooy il nga bindu par des médecins maintenant ànd ne ñetti conditions yi moo waxee bu ci nekk am na ay dérogation mais bëgguma ñu taxaw peut-être ci dérogation par exemple nit mën na bañ a nekk de nationalité sénégalaise exercer fi légalement loolu ci dérogation yi lay bokk les médecins militaires dañoo bokk ci dérogation inscription en l'ordre de médecins ñoom ils sont pas obligés ñu inscrire ordre des médecins mais globalement ñu jàpp ne ñetti conditions yooyu noonu nit moom la war a réunir pour mën a exercer médecine donc day feeñ ne képp koo xam ne soo dee même professeur en médecine nga am nga diplôme yu war mais binduwoo ordre des médecins da ngay tombé ci li ñuy wax exercice illégal parce que binduwoo ordre des médecins qui une condition pour exercer la médecine. Mhm. maintenant mais loolu c'est moins grave am na beaucoup de am na ya de plus en plus peut-être ñu ngi ciy xeex pour di wàññeeku des médecins qualifiés yoo xam ne ñu ngi exercer ñu euh, loolu ñu ngi koy parce que ça permettra de fermer la porte aux autres. Mhm. mais li gën a poser problème mooy ñi nga xam ne maintenant ñoom jànguñ médecine xamuñ médecine nekk di ko exercer. exercer. Wala, di dugg ci ay structure de santé mhm. euh, wala di créer seen structure bopp loolu moo gën a poser problème parce que kooku moom xamul li muy def après peut-être loraange rek lay jural population bi mhm. maintenant lan moo ci responsabilité responsabilité bi bu ci njëkk mooy peut-être le le nu mu tuddati le ministère euh, je dirais même l'administration d'une manière générale parce que amul fenn fooy dem ci réew mi te amul peut-être une représentation de l'État à travers ces différents euh, démembrements mhm. koñ boo dem boo fa tijjee cabinet muy poste de santé nga centre de santé nga tijji wala euh, cabinet périmé paramédical wala je sais pas lan nga tijj am na euh, soit préfet wala am na sous-préfet wala am na infirmier chef de poste wala am na peut-être gouverneur donc am na police am na gendarmerie yoo xam ne mun nañ ñëw laaj la ne la yow kat tijji nga nga ne da ngay faj ana say këy da autorisé ko nga mën a tijj mhm. bu fekkoon ne ñu ngi koy def ci ruq-ruqaat yi ku ci nekk le médecin de bi nga xam ne moom zone am la nekk mu essayé xam ñi tijji ñëpp foofu ñi am activité de soins mu dem laaj leen ndax am nañ autorisation gouverneur bi préfet bi sous préfet bi Euh, ñeneen ak ñeneen def ko police di ko def gendarme di ko def ndokoon ne yaakaar naa nit ku tij bi bala ngaa def une semaine fenn dinañ mën a xam ndax yow am nga les habilitations qu'il fo wi ou non. Mhm. maintenant puisque loolu duñ ko def wala nañ koy defee doyul moom moo tax nit mën a nekk ci koñ. pendant des années di exercer la médecine am ab cabinet di recruter ay médecins sax des fois alors que conditions yi nga xam ne moom lañ teg respecté wuñ mm-hmm. beneen bi aussi loolu mooy responsabilité ministère donc dañ leen di invité à travers en tout cas le niveau central ñu gën a yokk seen inspection mais aussi di joxe des instructions à leur euh, au, leur service déconcentré ñuy dem di dugg di xool ñi nga xam ne dañuy faj lan la ñuy def ak ndax am nañ autorisation yi maintenant mm-hmm. les populations aussi dama leen di wax ne ñoom it am nañ ci responsabilité. Mm-hmm. parce que yow boo amee boo soxla sa oto bu panee da ngay dem xool mécanicien bu baax bu xarañ nga jox ko sa oto. soo bëggee ñaw lu yére da dem gis tailleur bu xam ne la muy ñaw doy na la nga jox ko ko mais de la même manière aussi boo feebaree waroo dem foo koo gis mu installé dem nekk ruqam wala di def ay affaire nga jox ko sa war nga mën a leer lu gëstu ba xam ne ndax kii li muy def mun na ko wala munu mhm. donc de la même manière aussi que ministère am na ci responsabilité mais population yi dem ci ñooñu aussi am nañ ci une responsabilité maintenant hors les médecins wala les médecins d'une manière générale peut être ñoom mun nañ ci am peut être responsabilité bu fekkee ne yow gis nga ne kii mu ngi exercer la médecine te conditions yi nga xam ne waroon na ko remplir remplir dénoncé woo ko ça on peut dire que peut être responsable mhm. pour terminer par exemple ci euh, l'ordre des médecins moom sa responsabilité c'est vraiment faciliter population yi bañ mën a identifier les médecins yi nga xam ne ñi ñoo woor que ne war nañ mën a def exercice médecine parce que bind nañ ci tableau de l'ordre des bi ñu publier tableau bi à temps et que foo mënti nekk ci àdduna bi wala ci Sénégal boo cliquer ci site internet nga war a mën a xam ndax docteur Amadou Sow bi il est régulièrement inscrit wala déet Mm-hmm. loolu des médecins de fait je rappelle que rek mooy version électronique bi doon nañ ko publier mais dafa aussi nit ñi dañ ko jël am beneen utilisation bi actuellement on est en train de travailler de telle sorte que le tableau sera mis en ligne mais euh, kenn du ko mën a ñëw télécharger ko euh, dans sa globalité pour def ci beneen utilisation mm-hmm. donc voilà je pense que si tout toutes ces actions combinées bu ko defoon dinañ mën efficacement contre l'exercice illégal de la médecine. Mhm. Euh, bokk na aussi tamit euh, ci seen euh, combat li nga xamante ne moom mooy trafic de faux médicament chaque semaine daanaka douane sénégalaise daal di ci saisir loo xamante ne dañ buñ ko estimer day nekk tamit koppar bu takku yéen ordre des médecins bokk na tamit ci seen ci seen combat tey boo ñu doon defal ab xayma lan nga ñu ci mën a wax phénomène phénomène bi reculer na wala jàpp nga ne donte am na ay daan donte am na ay yu yuñ ci def euh, trafic de médicament euh, tey la wàllu gën a aay. waaw loolu moom xam naa ne peut-être suñuy dañuy bàyyi yi ñoom lay gën a yitteel parce que mm-hmm. voilà Sénégal niñ tëggee mbir yi le médicament li ñuy wax yàlla monopole du médicament c'est le pharmacien fi ñu defaree médicament ba bañ koy joxee malaat bi normalement euh, à toutes les étapes pharmacien moom moo fa nekk donc ñoom la question boobu ñoo ci gën a yëngatu mm. mais ñun en tant que aussi médecin boo xam ne on doit veiller à la sécurité peut-être euh, de nos patients euh, di contrôler peut-être produit yi nga xam ne ñoom leen di bindal baax na wala baaxul c'est une question qui nous intéresse effectivement comme ni ko waxee gis nañ ne en tout cas c'est un problème boo xam ne depuis des années mu ngi fi certes am na ay jéego yu def mais pour man personnellement pense que effort yi volonté politique bi euh, des na parce que buñ gisee fu mel ni euh, am na ab dëkk euh, fii ci Sénégal boo xam ne dépôt yi ñoo ëpp pharmacie yi te nga gis feneen foo xam ne dañ ne fii dañ fay jaay médicament peut-être ñu mën a tuddee médicament de la rue mais amul benn effort bu ñu def pour mën a arrêter lool no nga gis en trafiquant de médicament boo xam ne peut-être yoon dem na ba tëj ko après ñu gracier tout ça day wane ne en tout cas volonté politique moom pour xeex le trafic de médicaments des na. Mhm. loolu nag ñi nga xam ne ño nekk ci secteur bi muy le syndicat des pharmaciens euh, privés ou bien l'ordre des pharmaciens wala le syndicat des médecins ñu ngi en tout cas peser de tout leur poids pour que li nga xam ne mooy la convention médicale nga xam ne àdduna euh, bi ci seen bopp ñoo toog. xalaat que ne lii problème la boo xam ne ça dépasse même les pays nañ jéem a lëkkaloo suñ doole defar euh, jumtukaay boo xam ne mooy ñu mën a permettre ñu xeex efficacement donc convention boobu noonu aux dernières nouvelles euh, Sénégal euh, bind na pour mën ko ratifier peut-être bu processus bi yegg à terme su boobaa dinañ mën a gën a durcir daan yi nga xam ne moom la ñuy daan ñiy def la trafic de médicaments mais en attendant d'y arriver li nga xam ne c'est à notre portée mooy li nga xam ne ci biir Sénégal la état na jël responsabilité am képp ku war a manipuler médicament bu ko manipuler il y a suffisamment de pharmaciens yàgg nga dégg les jeunes pharmaciens yi euh, di di yëngatu amuñ ñu ngi bëgg a tijji pharmacie mënuñ ko tijji alors que des zones yoo xam ne amuñ pharmacien les centres de santé yu ci ëpp amuñ ay pharmaciens les hôpitaux ainsi de suite Euh, war nañ mën a am ay pharmaciens donc je pense que na état li nga xam ne mooy responsabilité pour lutter efficacement contre le trafic de faux médicament déjà en facilitant l'accès aux pharmaciens professionnels bien formés mm-hmm. suñ amee loolu rek peut-être le reste ku dem ci euh, le circuit parallèle yow la neex. Mm-hmm. Euh, mu mel ni su ma la déggee dafa nekk rek lu ñuy le mal est beaucoup plus profond parce que chaine de valeur yi dafa bëri. oui absolument intérêt yi ci lalu moo bëri trafic médicament c' est des milliards à travers le monde médicament boppam dafa nekk boo xoolee euh, nit boo demee faju peut-être la ngay fay consultation du dara par rapport ak la ngay jëndee médicament donc intérêt yi ci lalu moom moo bëri mais nag tax nit ñi di yokkat wala ñu ñuy tiit par rapport à ça parce que lépp lu leen jaral état mu am responsabilité sàmm wér-gu-yaramu askanam médicament bu jaarul fu mu a jaar rek lay nekk un poison te su boobaa nag euh, saafara bu jur jàngoro lay nekk te gis nañ ko moom ñu koy indil insuffisance rénale ni mu bëree Sénégal fi mu toll nii bëreewutoon ko te il est clair que garab yooyu nga xam ne moom la ñuy wax trafic de mais trafiqué am na ci mm-hmm. rôle boo xam ne moom la ci joué. Mm-hmm. donc état ne serait-ce que du point de vue santé publique pour préserver la santé de sa population dafa am obligation pour xeex euh, contre les médicaments euh, voilà trafiqués. Mhm. Euh, euh, euh, docteur Amadou Sow waxtaan wi am na solo mais mu mel ni lu ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ca. waaw a ah, tout cas c'est ça fait un plaisir pour moi de. discuter wax ak population yi ci domaine boo xam ne peut-être c'est pas très bien connu de la mhm. médecine légale mais aussi aborder d'autres problématiques yoo xam ne ñu ngi koy dundoo bien donc di la jaajëfal ci xalaat bi nga xam ne am nga ko pour inviter ñu et di la manifester notre disponibilité pour ultérieurement boo ñu soxlaa pour ñu mën a ñëwaat échanger ak les populations. Mhm. Euh, sant ko bu baax a baax waaye tamit gërëm ko bu baax a baax moom docteur Amadou saw nekk euh, médecin légiste euh, fàttali ne docteur Amadou saw moom ginnaaw bi nga xamante ne médecin légiste la nekk nay tamit président de la commission administrative bu ordre national des médecins du Sénégal fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou ba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen invité ak beneen émission